bisimila yu dal leen ak jàmm réew ma tojoti na waa fu ñu jëm ak Sénégal bu fekkee ne xeetu sénégalais yi ñu ngi ci biir réew mi cëy lii lu doy waar ab vigile moom la ñu bett ca Médina muy tëdd ak ndaw soo xamante ne nii àndut ak xelam vigile baa ngay wuyoo ci turu Amadou Sall moom mu xemeem ab dof bu jigéen ngeen baal ma ci kàddu kii dem ba yegg ci di ko sàkku bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci yéenekaay bii di laas waa ji dañ koo fekk muy jëflante ak ndaw soo xamante ne xelam la ko feeñal ruuy bu commissariat de police bu rëbës ñoom ñoo ko bett fekk ko ci kaw ndaw si yemoo moom mu nekk ca ci guddik altine gi ñu weesu yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juin ca booru minuit ca avenue Blaise Diagne angle Dial Diop gën kaa leer ca wetu feu tricolore ba tey bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di las vigile bi di wuyoo ci turu Amadou Sall am lu tolloo ak ñaar fukk at ak juróom mujj nañu ko teg loxo ca waxtu wa muy jàkkaarloo ak way l'enquêteur jàpp timis ngir jël fa ay kaasu sàngara bam fa bàyyeekoo jàpp yoon di ñibbi këram ca la seen ku jigéen ca wetu feu triclor mu xemmeem ko lool xelam nekk ci moom mu daldi waaxu jubali ko ba mu yegsee ndaw si nga xamante ne nii àndut ak xelam daanaka dafa xiifoon lool di koy laaj ab xaalis laataa muy yegg ca kawam ngir mën nax ndaw si Amadou Sall vigile ba waaw mburu ma mu yoroon ca saagam moom la ko jox nee na nag yee jaay moom nag xamul woon ne ndaw soosu àndut ak xelam maa xàlla noo koy xamee naan ba màndi waaye loolu génnewu ko ca mujj yi ñu jot mooma Amadou Sall vigile ba mujj nañ koo déféré o parquet la ko yoon joxoñ baaraamu tuuma nag mooy outrage public à la pudeur maanaam jëf-jëf gu ñàkk orma ci penc mu ñëpp bokk waaw këy sàngara si nga naan mu jaay sam xel ba nga sàkko at di tëdd ak jigéen yoo xamante ne àndut ak xelam fii ngay mujjee xaw ma kande waaye sa prochain cas moom ndox lay doonte prison ba nga koy naanee jërë ngeen jëf